bu mel ne 1789 ci dëkk dëkku tubaab yi France ba mu paree deret ju bari tuuru entre révolutionnaires yi ak contre révolutionnaires yi defe naa sax ca la guillotine amee ñu tëral nit dagg baatam léegi il fallait que pour jubale waat société ba nit ñi fàtte fàtte pour mieux rebondir pour mieux juboo et euh, dama naan bu ñu fàttee suñu euh, passé fii événement Casamance de 87 à 91 événement yi fi jotoon na am yépp président Abdou Diouf da leen a amnistier looloo andi jàmm dëgg ci réew mi doomi Sénégal yépp àndandoo juboo euh, ñu baalante ak ku nekk ndax coow bu amee ci benn parti réew mi xëccoo am kuy gañe kenn ñëppay perte et avant loolu président Senghor andi na fi amnistie digganteem ak Mamadou Dia ah président Ablaye wàdd andi na loi Ezzan donc en soi amnistie lu baax la li ci des nag mooy expliquer parce que pour lui curseur bi fi ñu koy teg foofu rek mooy coow li il faut que nit ñi waxtaan ba juboo et defe naa ne peccum ndaw réew mi loolu it liggéeyam la suba ci plénière bi ah lañ fay xaar du ay kurpeñ waxtaan la ndax ñoo ñooy représenté peuple bi ñoom ñoo ñuy représenté ñun ñëpp ñu waxtaan xool parce que il faut pas que bi jàll pour mel ne loo xam ne mm-hmm. auto amnistie la wala ay histoire lay andi suba yeneen te fekk jóg defar moo ko tax a jóg. ban nga dégg ci auto amnistie. non auto amnistie am na ñu koy wax parce que li ma lay wax sànq ne la euh, ci soo demee dëkk bu mel ni France entre révolutionnaires yi ya fa nekkoon nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ñoo jëloon buur gi ñi gagné woon 1789 ak contre révolutionnaires yi ku ci ne def nga deret tuur nga deret lu bari donc. bu sooy xool livre histoire yi dañ la naan en fait amnistie boobu c'est pour révolutionnaire ya lañ doon auto amnistie hmm. te defe du loolu c'était pour France Dubos parce que mbir mi histoire soo koy xool bul xool rek côté bi la arrangé hmm. eh, defe naa ne ci lu ne euh, suñu sëriñ ba daan na wax ne bëgg na ci lu digg dóomu hmm. waaw wante euh, cere ji dafa saf xorom ba mu ëpp wala dafa saf sukkar ba mu ëpp problème la rek il faut lu ne nga digg doom lu baax la